alhamdulilah xaqa xamde walsalaatu wassalaamu ala abdihi wa rasulih wa ala alihi wa asxaabihi wa xisbih amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal sunu borom tabaraka wa taala gannaaw bu loolu jàllee ca xutba yi weesu jotoon nañoo wax ca labat ak lu jëm ci soññee ci denc ak atte yi nga xam ne labat am na ko la cay dagan ak lu ca daganut ak yee ñuy jigéen ña ñuy xemmemloo ñu góor ñay wut soxna ak góor ña ñuy xemmemloo jigéen ñay wut soxna kon nag gannaaw boo xam ne noonu la mbir mi tëdd jaadu nañu jàll ci loo xam ne ay ponk la ak ay charte yoo xam ne dafa aju ci sëy ndax ponk buñ ko waxee mooy loo xam ne mbir ma du taxaw te loola nekku ca na kenu la mel ca lam yanu noona la ponk mel ca loola kon ponk moom ci biir sëy ba ci boppam ci la bokk charte nag buñ ko waxee luy jóge ca bitti la waaye moom it nag lu munta ñàkk la ponk yi nag ah, yii la moo di ku góor ki ak ku jigéen ki ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a maye bokk na ci seeni ponk seen baat wéet mooy amul dara luñ gàcc ci seenu loos loolu mooy lan mooy kenn ci ñoom nekkul ci bu dee ku jigéen ka nekkul koo xam ne ci buumu jàmbur la nekk wala mu nekk ci idda yoo xam ne jeexagul daanu xam ca kanam la idda wala mu doon koo xam ne sax dafa araam ci ku góor kii moo xam li tax mu araam ko aw askan la maanaam ak jegeñaale gu ëpp wala ak nàmp moo ko waral wala sax ak goroomle moo ko waral beneen sabab moo ko waral wala bu dee ci wetu ku góor ka mu doon koo xam ne wér na ne moom mii Euh, yor na ñeenti gor yu jigéen yoo xam ne ñeenti soxna la kooku kenn mënu koo may soxna soo xam ne lay doon wala lu ko ëpp kon ponk bu njëkk bi daal mooy ñaar ñi ñuy fasal sëy bi na doon ñoo xam ne féex nañ nekk nañ ci jàmm seenu loos dara ajuwu ci du buumug jàmbur amul itam benn gàllankoor boo xam ne moo tax moom mii waruñu ko maye wala waruñu ko may kii ponk ñaareel ba mooy li ñu tuddee al ijaab mooy kay kilifa jigéen ja kay kilifa jigéen ja daanu xam ci kanam lan mooy kilifa jigéen mu joxe kàddu guy wane ne moom jigéenam ji dencal na ko kii wala d'accord na ci dencal ko kële su ko defee sart ba cay tegu mooy kooka itam kañ koy may wala kañ koy dencal mu joxe kàddu goo xam ne day wane ne nangu na loola nag ñoom kenn ku ci ne mën naa teewal sa bopp ku ci nekkit mën naa wuutal keneen maanaam kilifa jigéen ji mën naa teewal boppam def li ñuy tuddoonum maye waaye mën naa yebal nit mu toog palaasam ku góor ki moom ci boppam mën naa teew ñu may ko ci kanamam bu ko neexee mu yebal keneen koo xam ne mooy toog palaasam kàddu gam waroon a wax mu wax ko waaye lu mën a xew daal ki nga xam ne mooy de moo koy maye war naa tudd kàddu gu jëm ci sëy ne takkal naa ko sëy bi wala may naa ko sëy bi wala nu mu ko waxee ndax loolu mooy dëppoog na ko borom bi tabaraka wa taala jàngale ci alquran baatub zawaaj la jëfandikoo ak baatub nikaax ñaar yooyu benn bu ci nekk fas sëy lay tudd aada nag léeg-léeg mu tuddee dara leneen waaye suñ koy tudde loola it na doon ak fedd li waaye tudd sëy bi bu bañ cee ñàkk sëy bi ñu tuddaale ko ci ki nga xam ne day nangu it na joxe kàddu goo xam ne bu leer naññi la buy wone ne d'accord na ci sëy boobu yi ñu ko may lu gën a bari nag ci ñaan liñ aadawoo mooy tey ñaan jëkk a wax ne maa ngi ñaan wala maa ngi ñaanal jiw kay maye door a maye waaye fekk na la gën te gën a jaadu mooy kay maye ginnaaw ñoom ñëpp d'accord nañ ba teew ci jàkka ji la des mooy maye kay maye mooy jëkk yëgle ne moom kii may na ko kee su ko defee kañ ko may ne man loolu yi nangu naa ko su ko defee mu daal di doon contrat sax ci seen diggante kon ñett yooyu mooy ponk yi nga xam ne sëy am na ko ay sartam nag ñaari xaaj la am na sart yoo xam ne ci xam ne su sart bi baaxul rek pas-pasu sëy bi moom baaxul la ca jiitu mooy jigéen dina am li ñu tudde wali mooy kilifa kilifa gu koy maye jigéen ji mënu koo ñàkk sëy boo xam ne kilifa amu ca sëy ba du wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa nikaaxa illa bi wali koo xam ne amul kilifa gu ko maye moom jigéen ab séyam du wér maanaam mënut a jóge fii rek dem maye boppam wala mu dem tànn ku ko neex ne ko kaay maye ma kooku dem dafa am ay mbiram yoon wu ñu ko organisé yoon wu ñu ko teg woo xam ne suñ ko jalgatee rek lor bu mag a mag lay indi ci mujtama bi léeg-léeg nga dégg ay jafe-jafe yu bari foofu ñaar ñoo xam ne dañuy bëggante waajur wa nangu ko maye ñu dem seet keneen rek moom daal di koy maye loolu lu mag la te ndax kilifa gaa fa loolu moom ñi xam ko teel maanaam ay jàmbur mënuñoo maye doomi jàmbur wala koo xam ne a ngi ci kaw suuf loolu ñu bàyyi ko xel bu baax li ñuy sàtt ci kilifa googu nag mooy na mat mu kàllaf bu mu nekk xale boo xam ne ajouragul na nekk itam góor jigéen du maye boppam du maye keneen na nekk koo xam du jaam te jaamu kenn waxuñu nag jaami caaxaan yi ñuy wax waaye jaam boo xam ne dañ koo moom ci yoon moo tax ñuy wax na doonit koo xam ne moo ki muy maye ñoo bokk diine waaye ku nekk ci ko maye na doon itam kuñ xam ak maandu teem la maanaam xamuñu ci moom daal muy def ay bàkkaar yu mag na doon itam koo xam ne xam na li muy def lu mu doon maanaam ku xàmmee bañ a doon ku dese wala ku manqué wala yu mel noonu waaye xam na sëy mooy lan xam na it ki muy maye lan mooy intérêt am ci ki mu koy may kooku su sart yooyu dajee kooku mën naa nekk kilifa képp jigéen nag yoo xam ne fasal na boppam ab séem wala mu jég gi wàll ba ko lislaam tegal dem te keneen mu mayee ko sëy booba du wér Aïcha umul muminin radiallahu taala anha muy soxna yonente boo xam ne takk nañ ko ci lu dul ndigalul kilifaam ay neen la wax ko ba muy ñetti yoon fa nikaaxuha baatil fa nikaaxuha baatil baatil nee na sëy booba ay neen la moom luñ fasute yam képp su fekkee nag sukkandiku na ca loola ba jël ko di séyeg moom te fekk noonu lañ ko maye woon yone bi sallallahu alayhi wa sallam nee na séy boobu dañ koy tas duñ ko jàppee njaaloo di teg ci kaw jigéen ji ak góor gi attam njaaloo ndax dafa lënt ginnaaw mayee nga fa rek nikaaxu suufa lay daal di tudd am lënt lay tudd waaye nee na su boobaa can gam dige woon na ko jox na ko joxe ginnaaw jël na ab jaambur séq ak moom la nit di séq ak jabaram kon can ga moom day day di war a génn loxoom fekkee joxewu ko woon na ko joxe kon sëy booba daal di yam foofu ba bañ koy maye geneen maye boo xam ne bu tegu ci yoon la mu ne nag su fekkee nag juuyoo dafa am ci lépp maanaam kenn munta am ku ko maye ñépp jeex la fa sos nee na fa sultaanu waliyu man laa waliya lahu nee na su boobaa la fa mooy état maanaam pouvoir bi nga xam ne charia lay àttee su boobaa ñu dellu ca moom moom muy kilifa ñëpp mu maye sëy booba su boobaa loolu mooy mooy jaadu am na yit même état yoo xam ne attewuñ lislaam am na ay mbir yoo xam ne mën xam ne dafay attewoo lislaam am na ay mbir yu demee nag yoo xam ne mën nañ faa wóotu loo xam ne lislaam dana ko maye su fekkee su dikkee la muy def di juróog la lislaam a def foofu daf koy accepté kilifay jigéen nag buñ ko waxee ñii la ka jiitu mooy bàyyi la waaye ñu fàttaliku ne ñoom ñëpp na sart yooyu ñu tuddoon kilifa guñ tudd gu ne daa war a daje ci moom kon bàyyam mooy kene ca tedd liste ba ka tegu mooy koo xam ne bàyyam a ko yebal moo ko moo ko dénk ne na ko na may sama doom kooku day daal di am priorité ci ñi ci des ñëpp su fa bàyyi nekkul kooka nekku fa kon maam ju góor moo fa sës su fekkee ma nga fa maam ju góor nag buñ ko waxee ak lu mu sori sori moo xam daa jur baay wala daa jur sa maami baay ak lu mu sori sori kooka mooy toog ci troisième position bi ñeenteel ba mooy doom doom ji jigéen joo xam ne ndaw see ko jur doom ji góor yoo xam ne ndaw see ko jur charte Euh, kilifa daje ci moom su boobaa mën naa maye yaayam juróomeel bi mooy ab sët bu góor su fekkee doom ju góor amul ñooñu ñuy wax ñëpp kenn amul bu boobaa moo fa sës mu góor ndaw si ñoo bokk su fa kooka lañ bokk mooy daal di amul waaye doomi frère am nga fa bu góor bu mu bokkal ndey ak baay su boobaa kooku mën naa toog palaasu kilifa su fa kooka amul koo xam ne baay rek la bokk ak su fa kooka amul ñu door a dellusi ci ki nga waaye dafa fekk ne moom baayam ñoo bokk ndey su fa kooka amul ku bokk ak baayam a bokk ak baayam benn baay doomam jum jur te mu nekk góor mën naa toog palaasu baayam su kooka amul te bokk baayam benn baay doom jëm jur daal di ñëw taxaw su fa loolu amut nag dañuy xool rek ci wàllu li ñu tuddee géew ñoo xam ne lam bokk ak ñoom ci wàllu baay la lam bokk ñoom ci wetu baay bi la ñooñu la ñuy xool ku fa gën a jege rek mu toog place boobu su fekkee ñooñu yépp amuñu loolu la ñuy tuddee su fekkee ne yooyu yëpp nag amul wala am na ñu ko nekk sax waaye ay condition dajewul ci ñoom yoo xam ne mën nañoo maye su boobaa lislaam nee na ndaw si sultaan moo koy maye maanaam qaadi yi juge bi nekk ci koñ bi di àtte nit ñi ci tuutum borom tabaraka wa taala ci lislaam kooku su boobaa mooy maye maanaam mooy pastiya ñu bàyyi xel nag ne <clears throat> képp koo xam ne kuñ yebal la day toog palaasu ka ko yebal maanaam lépp loo xam ne lu mu amoon ci ay droit la koo kookee ñu yebal mu wutu ko day am droit yu mel noonu ñu bàyyi xel itam ne li ñu tudde meen muy koo xam ne da ngeen a bokk daa bokkee ndaw si ci wetu yaayam kooka du maye ci lislaam kooku munta maye munta nekk wali kon ki mu bokkal jenn ndey sax munta munu ko maye ginnaaw ginnaaw géejo laalu ci lislaam nee na kooku munu ko maye nijaayam ñu gën a bari dañuy wax ne nijaayam a ko may nijaay mënut a may ci lislaam mënul nekk jëkkëri yaayam ñu bari dañuy def bu tàggoo naa ku jëkk ga keneen takk na ko mi ngi ci suufam moo leen boole yor di leen dundal waxtu si jot nañu jàpp ne jëkkëri yaayam jooju moo ko war a mën a maye te fekk bàyyam a ngi ci sa suuf loolu mënut a nekk bàyyi ba ko jur wala ña toftaloo ña ma tuddoon ñooñu ñooy kilifaam waaye kii takk yaayam yoraale ko donte kooku mënu ko maye lu dul su fekkee ne baayam ba ko jur moo ko jox ndigal ne ko maye ko su fekkee nag dem nañ ba mu yàgg ñu gis ñaar ñoo xam ne ñoo tolloo dëgëre comme ndaw si am na ñaar ñun bokkal ndey ak baay ñooñu ñoo tolloo dëgëre ci maye ko bu boobaa sharia dane ku ko ci maye rek baax na ñaar ñooñu ku ko ci maye rek baax na suñ tànnee ko ca ëpp mu xel wala ko ca ëpp ay at wala moo xam nañ ko tànnee waaye ku ko ca maye rek baax na ñaareelu charte yi gannaaw boo xamee ne kilifa jàll na mooy am ay nit ñoo xam ne dañuy seede takk gi ñooñu nag sharia daf ne lum néew néew na mat ñaar ñaar ñoo xam ne ay góor lañ ay mukallaf lañ maanaam ñu major ñuy dégg lañ ndax ñu xam la ñuy wax ca jotaay ba ba koo seede ñu mën a wax la ñu doon it ba buñ leen laajee ñu mën a tontu lañ doon fekkee lu mu doon lu mu néew néew na mat ñaar ñu mel noonu su ëppee ñaar nag ak lu mu gën a bari témoins yooyu day gën a baax rek moo tax sëy bi buñ ko yëglee tasaare ko mbooloo mu bari yëg ko ñëw teewee si ko loola lu baax a baax la bokk na ci yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam buñ ko daan def daf ko yéen te yëgle ñu yebal nit ku yor am am ndënd di tëdd ci mbedd ma que moo doon moyen d'information bi nga xam ne moo fa amoon yéen ca mbedd ma di tëgg di yéene ne diw sàngam ak diw ñoom la ñuy bëgg a maye wala ñu yëgle ne dem leen wuy ca jàkka ja bu waxul sax lu mu doon wala dem leen wuy ca béréb sàngam muy fañ koy fase kon yëgle gi bu boobaa day jaabu waaye nag su fekkee ña fa teew mat na ñaar rek sëy ba moom dal nay wér bu ko yéesee nag sëy ba du baax ñetteel ga mooy li ñuy tuddee <coughs> tax yéenu saw jëyn ña toog ci jotaay ba terme yi ñu jëfandikoo su kii di ñaan ak suñuy maye dafa mat a segg bu baax a baax tànn ko ba lim wax sutiyee ki muy maye bu baax bañ xam kan la ndax ñëw ne may naa ko sama doom rek te fekk doom yu bare bari la yor kooku du du leer dañ koy wax ci anam goo xam ne danañ xam kan la ca ñoom diw sàngam ginnaaw autour la yor nañ jaar ca tur ba kay may ku góor kay itam du ñëw ci nit rek ne ko may naa sama doom sa doom te xamut te fekk kooku am na ay doom yu bari faaw mu wax kiñ ko may ku mu ja su fekkee nag amut lu dul jenn doom su ne may naa la sama doom ñu xam ne kooku rek lay wax wala am na doom yu bari waaye mu ne may naa la ku mag ka kon ñu xam ne kooku lay wax wala may naa la ku ndaw ka ñu xam ne kooku kon daal benn mu jaar ca tur wa wala mu joxe aw melokaan boo xam ne dana tax ñu xam ne kooka di diwa su ko defee loolu mun caa ñàkk charte ñeenteel bi mooy d'accordu ñaari way sëy ñi ku góor ki ak ku jigéen ki ku ci ne da ngaa war a d'accord su fekkee ne am na ci kuñ forcé ne ko faaw nga dem ñu maye la tey te bëggul suñ ko maye sëy bu baaxul moo xam ku góor ki la nag ku jigéen ki Abu Hurayra radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne daa sëyi woon ba ñibbisi dafa sëyi woon ba tas ba dellusiwaat kooku moom la ñu tudde al ayim nee na kooku suñ koy mayewaat dañuy sàkku ndigalam maanaam faw ñu dikk sàkku ndigalam ba wax ne bëgg naa wala bëgguma ki nga xam ne nag musta xale la nee kooku dem ñu diisoogu moom ñu ne ko ah ñu ngi diisoogu moom mu buñ ko laajee ndax bëgg nga diw de bu nee cell ñu xam nekkoon kon bëgg na ko waaye su ko bëggul woon day bañ wala mu wax wax luñ mën a xam waaye nag loolu xëy na ci ay jamono la loolu atte la boo xam ne dafa dellu ci li ñu tudd urf waaye dem nañ ba jëmmi jamono kuy ndaw ak kuy mag a ci yem kuñ may koo bëggul ku nekk da wax bëgguma ko soo ko bëggee da ngay wax bëgg naa ko kon Euh, li ñu tudde urf muy aada ak cosaan day dem ba soppi yoo xam ne nit ña na nañ meloon melatuñ noonu am na ay jamono xale bu jigéen boo xam ne séyagut wala sax ci ay gërëb ba léegi ci kaw gi wala yu mel noonu boo bëggee xale bu jigéen bi ne bëgg naa diw ci làmmiñam kooku doo dëkk mukk wax ko ci làmmiñam waaye nag loola du fépp du ci jamono yépp itam day soppiku nga gis xale bu jigéen boo xam ne sax koy jëkk wax ku góor ka ne bëgg na ko kon su la ñuy considéré foofu mooy ay waxam suñ ko laajee bu bëggee mu ne bëgg na su bëggul mu ne bëggul loolu mooy li jaadu jamono joo xam ne fas nañ ab sëy ndaw sa wax ne moom mii dañ koo forcé ci sëy bi waaye bëggul kooku am na droit ci kay àttee ne ko tànnal bu la neexee nga continuer ci bu la neexee nga tas sëy ndax nit def na ko fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maye nañ jigéen ba noppi mu ñëw fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man de su ma bàyyi def maa may mbokkam moo xam ne la tax mu def ko mooy nangam ak nangam ak nangam waaye d'accord mu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tànnal bu fekkee bëgg ngaa continuer continuer boo bëggee tas tas mu ne oxo kay mën na ngaa continuer sax waaye dangaa bëgg rek góor ñi nga xam ne mbir mi nekkiwul noonu ci seen loxo ba ku la neex rek maanaam lislaam jox na jigéen ji foofu droit boo xam ne kenn waru koo fëgg kon ñeenti sart yooyu mooy sart yoo xam ne ci pas ci rek sëy ba moom baaxul xaajub ci des nag yeneeni la yoo xam ne génn maanaam ay condition yoo xam ne ñaari way dencante yi ñooy waxtaan ne d'accord nañ ci def nangam su boobaa dañuy wax ne lépp loo xam ne daga noon na waa ji def ko te kenn laaju ko ko lépp loo xam ne daganoon na mu def ko te kenn laaju ko ko te sharia terewu ko ko su fekkee waxtaan naag ndaw si bañ sartoonte ko ci sëy bi kooku day war ci mu def ko su boobaa doonatul loo ne sañ naa tànn wala muy bañ a tànn bu neexee ndaw si mën na ne ko man day lii sama condition yow mooy du may génn sama kër baay fii laay toog boo ma takkee fii nga may fekk suñ ca d'accord yoonu kenn newu ci wér na bu ko neexee mu ne ko man day soo ma takkee damay continuer sa am njàng ñu d'accord ci loola ñoom ñaar ñooy seede seede loola su boobaa sa ju ko tëram njàngam bu ko neexee mu ne ko man day su fekkee da ngaa takk ñeneen itam da nga ma wutal sama këru bopp wala sama néegu bopp boo xam ne foofa laay nekk bu waaj a d'accord ci loolu loolu daf koy war mu def ko bu ko neexee mu ne ko man de soo ma takkee it damay liggéey te doon liggéey boo xam ne dëppoo na ak jigéen ci lislaam maanaam liggéey bu lislaam nangu su boobaa su ca waaj a d'accord kenn nekku ci mu des nag sart boo xam ne borom xam-xam yi nekk ci mazhabul imam ahmad ibn hanbal nee bu waaj a ci loolu sañatu la takk keneen li fekk ndaw saa ci suufam bu boobaa sa ñor takk keneen waaye nag borom xam-xam yi ci des yëpp ngiru Maalik ak ci des dañ ne boobu sart moom di su ko nangu maanaam bu ko waa ji accepté woon itam ay ñaan lay doon ndax day mel ne xaraamal lu dagan daf cee dugg day mel ne dafa am lu daganoon mu ñëw di ko xaraamal waaye it nag boo ko xoolee bu xóot a xóot day mel ne xaraamal lu dagan nekku ci woon ndax dafa am luñ daganaloon ci yow ne la sañ nga koo def nga ne sama àq jooju ma sañoon a def defatuma ko may naa la loolu loolu su boobaa dara nekku ci ginnaaw moo sañoon a dem takki ñaareel ñetteel wala lu ko ëpp gis ndaw si ne ko bàyyi naa sama àq ji ma amoon li daganoon ci man defatuma ko kon kooku kenn du wax ne dafa xaraamal wala dafa lef maanaam xaraamalul lenn ndax gëm na ba tey ne takk ñaari jabar ak ñett xaraam dagan na waaye nag nee na ko li dagan ci man dama koo bàyyi nit ki sañ naa toog ba mu neex ko ne du ma lekkati ceeb leneen laay lekk su boobaa duñ wax ne dafa xaraamal lu dagan waaye dafa am luñ ko mayoon mu ne loolu soxlaatuma ko kon li gën a wér mooy su sartoonteeg moom loolu daf koy war mu bañ mi ngi ci mi ngi nekk mi ngi nekk soxnaam kon sart yooyu bépp boo xam ne waa ji nangu na ko ci daf koy war moo tax buy dugg ci sëy ak lu mu war naa teeylu ba ya muy d'accord yépp ci ay accord mu xam ko luñ ci juboo lu nekk it war nañ koo bind fañ koy fase it ña koy ndax mooy tax boo léegi bu coow ñu xam li ñuy àtte lu mu doon kon yooyu ay mbir la yu mat a bàyyi xel kooku yépp ay charte la rek yoo xam yu wér la am na nag ay charte yoo xam ne buñ ko sartonte woon it baaxut charia ko nangu lu tax ndax bépp charte boo xam ne charia dafa tere nangam ne bu leen ko def ñu chartoon te loo xam ne day tax ñu di ko def kooka du dagan comme ndaw si ba muy ñëw di ko labat fekk na waa ji yor jabar mu ne ko pour ma nangu da ngay fase ca ca kër ga ba noppi ma door a nangu kooku day xaraam boobu charte baaxul bu ca waaj a d'accord it du wéy baaxul sariya du ko nangu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadisu Buxaari mu ne araam na ci jigéen muy ñaan jëkkëram mu fase mbokkum jullitam kooku du dagal wala ñu sartoonte sëy boo xam ne dañuy dëppoo ci ne fii lay tàmbalee yam fii weer lay doon ñaari weer at fukki at amuñu droit ci limité ko dañuy jàpp daal sëy bi day wéy ba ba gis dara lu ko gaar waaye suñ ko wutaloon limite sëy du baax booba condition ci boppam moo dul baax sëy ba sax mën naa baax waaye condition bi moo dul ko considéré day ci biir boobu ki nga xam ne daa fekk buñ fase nga xam ne mënatu la dellu ci jëkkëram te amul jeneen jëkkër am jëkkër daf koy takk su àndee moom ba àggal fase ko ndax mu man a dellu ci ku jëkk ka kooku itam boobu charte du baax maanaam suñ d'accord ci ne da koy takk bu àndeeg moom ba àggal fase ku mu dellu ci moom waa ji sañ na koo takk ba noppi bañ koo fase continue su ko defee bu boobaa dara du ko ci war ndax charte bi baatil la maanaam wérul kooku la ñu tudde nikaaxu taxliil wala ñu sartoonte kii ne lay may sama séer bi waaye nag kon itam yow itam danga may may sa doom bi wala sa séer bi ñu d'accord ci loolu kenn ku ne jox sa moroom ka nekkoon ci sa sa kilifteef can bañ a dox ci diggante bi ñu weccee rek mel ni ku weccee marchandise wala yu mel noonu boobaa charia nee na sëy ba ci boppam sax far baaxut bu boobaa ndax condition bu mel noonu day yàqaale ab sëy kon mboolem sart yooyu yi xam ne moom lañ tudd yooyu buñ ko defee mën naa yàq sëy ba ci commencement ba am na ci yoo xam ne buñ ko defee sart ba ci jëmi boppam moom lañ dul considéré sëy ba mën naa wér yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may tawfiq dëgëral ñu may ñu fekk ci suñu diine ba lépp loo xam ne aju na ci suñu dund ñu mën koo teg ci ni ko suñu sharia bëggee beneen bi ci des moo di jigéen ñi seen bopp ñu wàññi seen i kàddu ak seen wax su fekkee sëlmalati nañ dëgg la gëj a gis rek giseeg sa mbokkum jigéen ngeen gëj sa loolu lépp a ngi fi waaye nag yenn waxtaan yi ak yëg yëkkati yenn kàddu yi loola ca marché ba lañ ko baaxoo waaye baaxoo wuñ ko ci jàkka beneen bi ci des mooy lenn ci soxna yi soxna yi ci seenu xër ci xëy na déglu xutba yooyu yu mel noonu léeg-léeg ñu toll ci situation boo xam ne duñ julli loolu xabaar la yoo xam ne andil nañ na ko fi mu jóge ci jigéen seen bopp ñoo xam ne mënuñoo julli waaye dañuy yéeg ba ci escalier yi ñu toog foofu di déglu xutba bi ñu xam ne jigéen ji mënta julli mënta dugg ci biir jàkka mënta dugg ci biir jàkka te it ñoo xam ne julli ajjuma gi nekkut lu war ci ñoom loo xam ne lu mënta ñàkk la kon du jaadu ci ki nga xam ne mënta julli muy ñëw di teewe si lenn loo xam ne lu aju ci loolu la na toog ba yàlla féexal ko su bëggee déggu xutba bi mu déglu ko ci kaset wala ci leneen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika sayidi al anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa atbaihim ila yawmi ddin amma baad mbokki jullit yi ci sun xutba tey insha allah fas nañ yéene jël li jëm ci jigéen ñi nga xam ne dagan na ci góor mu takk leen ak ñi nga xam ne daganuñ mu bokk ci bindi fiq yi nga xam ne léeg-léeg xutbay jàkk yi war a taxaw delluwaat ci jàngal nit ñi lu aju ci seen diine rawatina ci mbir yoo xam ne dañ koy dund takkoog moom ci jamono yu nekk mu itteel góor itteel jigéen te it jamono yu nekk ay njuumte bi ci am ànd ak ne alquranul karim dafa koo leeral leeral bu leer nañ borom bi tabaraka wa taala dafa wàcce aay xam ne ci sóoratu nisa ci la leerale mboolem ñi nga xam ne dagan nañ ak daganuñ boo ko boolee xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da génn benn résultat bu leer naññ ci xam kan moo ñi nga xam ne dañ leen a xaraamal nag ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy ñoo xam ne dañ leen a araamal ba faw moom nit ki mën leen a takk am na nag xaaj boo xam ne dañ leen a araamal waaye mën naa dem ba mu dagan ci moom mu takk leen kon ñu tàmbalee ci bu njëkk ba bi nga xam ne day xaraam nit ki ba faw boobu ñeenti xaaj la ñeenti xaaj yooyu bi ci jëkk mooy ñoo xam ne dañ leen a araamal ngir aw askan dañoo jege ñaale ci askan ba tax ñu leen a la sunu borom tabaraka wa jëkk a lim ci aaye bi ndax seenu xaraam moom moo gën a tar bi mu koy limit dafa tàmbalee ka ca gën a tar rek teg ka ca gën a tar ndax mi ngi ko tàmbalee ci xurrimat aleykum ummahaatukum ci yéen seeni ndey yi leen jur nga ne moom moo gën a xaraam lépp teg ca wa banaatukum muy seeni doom yi nga xam ne yéen yéen jur kooka it noonu la noonu la ca wa ammaatukum muy seeni bàjjen ki bokk ak sa papa ndey ak baay wala ñu bokk ndey kese wala ñu bokk baay kese kooku mooy bàjjen kooku du dagan ci yow nga takk wa xaalaatukum moom itam mooy buñ ko waxee mooy tànt mooy ki bokk ak sa yaay ndey ak baay wala ñu bokk ndey rek wala ñu bokk baay rek kooku munoo koo takk wa banaatul axi la ca teg ki nga xam ne sa frère mooy moo ko jur ku góor ki nga bokkal ndey ak baay wala ngeen bokk baay rek wala ngeen bokk ndey rek kooku mënoo takk doomam wa banaatul uxti ku jigéen ki ki nga xam ne moom itam yéen a bokk ndey ak baay wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk ndey kooku mënoo takk doomam ndax doomam nijaayam la kële doomam baayam la ñu bari dañuy def na nag moom nijaay moom mën naa takk jarbaat la waaye fekk loolu bu fekkee jarbaat la pire kooku mënu koo takk su fekkee nag ay wax la rek nga xam dañ koo tuddee jarbaat waaye doonu ko su boobaa euh, beneen atte lay am kon daal la ca jëkk mooy ñoo xam ne askan wu jege moo tax ñu xaraamal leen ba mënuñoo ànd foofu nag lu aaja ne bu baax a baax la ndax ay njuumte dana ci am ba ca tegu mooy ñoo xam ne nàmpal moo tax ñu xaraamal leen su fekkee ne nit ki yaayam dafa nàmpal nit ne moom kooka bu fekkee ne jigéen la séeram la bu dee góor fereeram la maanaam kooka rakk lay doon ci moom wala mag mënuñoo dencante ñoom ñaar ginnaaw nàmpal na ko daal nàmpal boo xam ne dañuy wax ne eh, fex na nàmp xëcc lu mat juróomi yoon nàmp loolu la ñuy tuddee ab nàmp ci sharia te fekk ki ñuy nàmpal amagut lu mat ñaari at waaye kat su xasee weesu ñaari at boobu nàmpal waxatuñ ko ndax nàmpal bu doonut loo xam ne lu koy dundal la waaye ki toll ci jamonoy nàmp daal boo ko nàmpalee nàmp boo xam ne xëcc na ween wi lu mat juróomi yoon kon kooka ka ko nàmpal ndeyam la ay doomam ay magam la ñu ay rakkam moo xam ay góor lañ walla ay jigéen ñetteel ba mooy yi nga xam ne li tax mu xaraam ak goroom le la maanaam day seen goro kii daa takk kii kii takk kii moo tax mënatuñoo ànd ñooñu borom bi tabaraka wa tudd na leen ñooñu boo leen seetee ñoom ay xaaj lañ ki ci jëkk mooy ummahaatu nisaai zawj mu ne wa ummahaatu nisaikum soxna si nga xam ne danga koo takk yaayam xaraam na ci soxna si nga takk yaayam ci boppam dafay xaraam ci yow wa xalaa'ilu al aaba soxna si nga xam ne sa papa daf koo takk daal nay xaraam ci yow moom itam borom bi nee na wala tantixu maa nakaxa abaaukum min an nisaa bu leen takk li seen bàyyi takkoon ci ay jigéen li ca tegu mooy xalaailul abnaa sa jabari doom kooku mënatoo koo takk moo tax borom bi ne wa xalaailu abnaikum alladina min aslaabikum sa doom joo xam ne jur mënatoo takk koo xam ne jabaram la ñeenteel bi mooy arrabaib mooy li ñuy wax doomi jiitle soxna si takk andi doom ji jigéen jim am te amee ko feneen yow juróom doom ji jigéen jooju boo xasee takk soxna si ba ànd ak moom cib sëy mënatoo takk doom jooju waaye suñ ko ko fasaloon rek kat te gisee guñ bu ko neexee mën na ne man soxlawuma yaay ji doom ja laa soxla daal di fase yaay ji dem takki doom ja waaye nag suñ xasee àndu li ñu tudde du xool su amee seen diggante kooku mënatula takk doom ja moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne wa rabaibukum allaati fi xujurikum min nisaaikum allaati daxaltum bihin seen jigéen ñi nga xam ne ànd ngeen ak ñoom ci wàllu sëy fa in lam takunu daxaltum bihinna su fekkee ne nag àndaguleen ak ñoom ci wàllu sëy fala junaaxa aleykum kooku amul benn bàkkaar bàkkaar nekku ci yaay jañ la fasaloon te gisagoo ko nga ne leen déet man ta ah, yaay ja soxla ma ko fasal leen ma doom ja loolu mën naa nekk waaye nag su fekkee fii xas na dox ci diggante ba wala bokk nañ wéet ñoom ñaar fi benn béréb la sharia di tudde du xool su boobaa doom ji daal na koy xaraam ba faaw kon ñett ñooñu ñoo jiitu muy ki nga xam ne askana ko waral ak ki nga xam ne nàmp ko waral ak ki nga xam ne ak goroom le moo ko waral ñeenteel ba mooy koo xam ne rëbboonte moo tax mu xaraam rëbboonte nag buñ ko waxee ci sharia mooy waa ji su demee ba tuumaal jabaram ci njaaloo xam ngeen ni ku tuumaal nit ci njaaloo da ngaa war a indi ñeenti seede ñeenti témoin yoo xam kenn ku ne danaan maa ko gis waaye du ne dañ ma ko nettali su fekkee amu ko nag su fekkoon dafa am ñett te amul ku ko ñeenteel wala amul sax kenn far moom rek moo ko gis wala moom rek moo ne gis na ko loolu sharia du ko nangu waaye nag sharia am na lu mu ko may mooy dañ leen di woo ñu ñëw moom ndaw sa nga xam ne waa ji na ko mu weddi ñu indi leen ci place boo xam ne jullit yépp teew nañ mën naa doon ci jàkka ja te moo ci gën su ko defee waa ji ci yàlla ñeenti yoon ne lii mu wax dëgg la ñeenti yu tegaloo yoo xam ne bu ci nekk wallahi alazim lay wax wane ne lii mu jiiñ ndaw gis na ko moo ci teg bëtam juróomeel ba nag du yem ci wallahi alazim waaye day wax ne rëbbug yàlla yàlla na tege kawam su fekkee ni li mu wax du dëgg foofa nag su fa àggee juróom yooyu su àggee su waxul dëgg moom kooko alkade dikkal na su boobaa nag la fa war a sës mooy ndaw si dañ koy woo yow kat waa ji lii mën a jiiñ waat na juróomi waat yi ko sharia teg kon li ci war a tegu rek mooy mbugal mi war a tegu ci ku njaaloo moo jëm si ci sa kaw waaye nag mën naa défendre boppam moom itam ci naka moom it mooy mu seede giñ waat ñeenti yoon yoo xam ne day wax ne waa ji li mu wax waxul dëgg ba ko juróomeel mu ne su fekkee ne lii may wax du dëgg moom ndaw si kon merum yàlla yàlla na tàbbi ci kawam juróom yooyu su matee kenn ku nekk waat la chaque ne am na ci ko waxul dëgg waaye nag dañ leen di bàyyi ñoom ñaar ñu tàqali ko ba faw duuti ñu mën a àndati kon rëbboonte googu fu amee ci diggante ñaari way dencante su boobaa ñooñu ñaar mënatuñoo dencante seen diggante jeex na kon ñeent ñooñu muy yooyu ñu lim muy askan wi ak nàmp gi ak goroomle gi ak rëbboonte gi ñoo xam ne moo tax mu xaraam ñooñu araam nañ ba faw mënatuñoo ànd mukk xaajum ñaareel bi nag mooy ñoo xam ne dañ koo araamal ci jamono waaye jamono mën naa dikk mu dagal ñooñu mooy ñan ki ci jëkk mooy ñaari jigéen ñoo xam ne ñu bokk lañ maanaam mag ak rakk lañ mën nañoo bokk ndey ak baay wala ñu bokk baay wala ñu bokk ndey li feeg takkal nañ ko kenn ki ki ci des araam na ci moom waaye jamono yoo xam ne yoratul kenn ki kat moo xam faatoo ko waral wala tasa ko waral wala sax rëbbantee ko waral mën naa dem takk keneen ka ci des mën naa dem takk rakk ja wala mag ja waaye nag boole leen moom dafa xaraam kenn mënta boole ñaari jigéen ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala ñu bokk ndey wala ñu bokk baay ba ca tegu mooy yor yéen ba pare bëgg a takki bàjjanam maanaam ki bokk ak baayam ndey ak baay wala ki bokk ak baayam benn baay wala ki bokk ak baayam jenn ndey kooku mënoo koo jëli di ko indi muy wujjee kooku yi nga xam ne moom mooy bàjjanam wala sax tàntaam ci bokk ak yaayam ndey ak baay wala baay wala ndey rek ñooñu kenn mënu cee wujje ak sa morom boo xasee takk ndaw si jeex na mënatoo andi bàjjan ba mënatoo andi tànt ba wax bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu buxaari ak muslim daf ne deesul boole jigéen ak bàjjanam deesul boole it jigéen ak tàntaam kon loolu daal di leer ñetteel ba mooy jigéen ji nga xam ne da koo bëgg a takk ci kër gi mu doon juróomeel maanaam ñeent mat na mu bëgg a juróomeel boobaa kooka du dagan waaye nag moo bi moo yooyu weesu ñoo yem yoo xamee ne dem na ba yoratul ñeent bu ko neexee mën naa dem takk ci jigéen jooju mu bëggoon a takk waaye ginnaaw ñeent yaa ngi fi sharia nanguwul ku boole juróomi gor yu jigéen ci buum loolu munta nekk bàjjan beet nekk noonu jamono yoo xamee ne wàcc na ku jigéen ki mën naa dem tekki bàjjanam wala mu dem tekki tàntaam lu ci nekk mën naa nekk waaye nag yëfee kée ngi fi moom kële dañ ko ñeenteel leer na nañ mooy jigéen joo xam ne dañ koo takk te faseeguñ ko kiñ takk te fasewuñ ko kooku mëni su ko takkaat problème boobu nag léeg-léeg mu am léeg-léeg nga gis koo xam ne day jékki-jékki jóge kër jëkkëram ne mott dem suñ ko laajee mu ne damaa tas te duñ ca def lu wóor duñ vérifié bu baax a baax ba xam jëkkëram da ko fase wala déet su ko defee ñu dem mayewaat ko booba sëy baaxul ñaari buum duñ daje ci baatu yenn jigéen jamono yoo xamee ne nag ku na ko moom keneen mën na koo takk waaye munoo dem takki jigéen yoo xam ne ñu ngi ci buum wala wàcceguñ ko ko juróomeel mooy koo xam ne ci idda la nekk moo xam dañ koo fase wala jëkkëram ji jëkk ji wala dafa rëbboonte sax ak jëkkëram jooja luñ ci mën a doon am na idda juy tegu ci kawam yoo xam ne benn mu doon ñetti régal yoo xam ne set na ca wecc wala mu doon ñetti weer su koy gis ay régal doon ñeenti weer ak fukki fan su fekkee ne kuy téññi la koo xam ne jëkkëram dafa faatu wala mu doon ku am doom bu fekkee ne dafa ëmboon ndax dana ñëw ci kanam ne idda moom na muy demee mooy su fekkee ne ka ëmb euh, day jàpp idda iddaam mooy kero ba mu amee doom rek moo xam ne dañ koo fase wala dañoo rëbboonteeg moom wala jëkkëram daa faatu li feeg nag mi ngi ci biir idda ji doomu aadama mun ko dem di ko takk day xaraam ci moom su ko defee itam sëy ba ci boppam bu baaxul ah ñu am fii lenn ci ay taxaw seetlu ba ci jëkk moo di borom bi tabaraka wa boo xoolee bi mu jàngal ci wàllu jigéen ñi la dagan ak la daganut daf noo limal rek ci benn aaya mboolem li xaraam loolu aw jàngalin la woo ne wu gën a leer la ndax ñi dagan moom dañoo bari ba neexut a takk waaye nag ñi xaraam moom mënees na leen a takk soo leen fasee takk rek ñu bokkul ci ñooñu rek nga xam ne ñooñu dagan nañ kon ñu bokkul ci ñooñu ñu lim rek xamal ne dagan na ci ñaareel ba mooy lu bari ci jigéen ñi léeg-léeg ñu sàggan ci nàmpal doomi jàmbur lu mën a nekk la lu sharia dagan daganal la lu baax la sax ki gis doomi jàmbur mu xiif mu nàmpal ko def na lu baax waaye nag loolu suñ ko defee nañ ko nañ ko leeral yëgle ne xale bii nàmpal na ko ñaari njaboot yi ñu ànd yëg ko famille bi yëg ko ñépp xam ne kii doomi kii ak doomi kee ay mbokk lañ mënuñoo sëy waaye suñ sàgganee loolu mën nañoo dem ba màgg ay bëggante dox seen diggante ñu bëgg leen a maye te fekk ñoom ñaar wax tey ñaar ñu bokk lañ mag ak rakk lañ sharia jamono yonente bi sax lu mel noonu amoon na ku ñuy wax uqbat ibn al xaaris nee na takk soxna ba nekk ci sunub sëy di sëy ak soxna su ñuul jóge fële dikk ni yéen ñaar ñii di sëy de mas naa leen a nàmpal yéen ñaar ñëpp kon nga xam ne këleen di nàmpal même bu dul ku ci jurul kenn itam mën naa jóge fële boole leen nàmpal ñoom ñaar ñi daal di doon mag ak rakk sharia leen mën a boole ci sëy mu ne nàmpal naa leen bi mu ko waxee Uqba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day damaa takkoon diw sàngam doomi diw am soxna su ñëw ne daf noo nàmpal nun ñaar yëpp ne yonente bi sallallahu alayhi wa du mooyu maanaam won ma gannaaw ne mu wëlbatiku dikkee ko ci kanam gim ma dikkee gim féete ne ko soxna su kat waxul dëgg nee na mu ne ko lu tee lu tee nee na moo leen nàmpal kay taqalikool ak moom taqalikool ak moom daal di tax seen diggante diggante mag ndaw soosu kon nag mbiram googu moo xam ne mu aaja teey la duñu wax ne bu kenn nàmpal doomi kenn waaye boo ko nàmpalee na nga ko yëgle bañ xam ko bu baax a baax rawatina euh, ñoo xam ne seen diggante ak soree daf caa am ne bu fekkee ay nit ñu bokk bàyyi lañ moom nekk ci genn kër di nàmpalante kooku moom suñ leen nàmpalul woon it ñoom kenn ko ne xam ne mënuñoo ànd maanaam nit jigéen yi ne ci kër gi di wujjee suñ nàmpalee nàmpalante ay doom it loolu suñ ko waxee suñ ko waxul benn la ndax seeni doom mënuñoo dem mukk bay ànd ci waaye nag ay jàmbur moo tax ñuy wax ñetteelu taxaw seetlu bi mooy dafa am règle boo xam ne ci la ñuy xame kan moo araam ci askan bi boroom xam-xam yi dañ ne ndaw si digganteem ku góor ki bu fekkee dañ laa laaj lu ngeen bokk nga ne maa ngi moom a bokk nangam direct wala nga ne maag baayam maag nangamam noo bokk kooku mënoo koo yor lu ngeen bokk nga dem maag baayam noo bokk baay munoo ko yor lu ngeen bokk maag fereeram noo bokk ndey mun leen a ànd lu ngeen bokk maag maamam noo bokk ba tey munoo ko yor bu doon yaa ngi maamam yéen a bokk baay kon maamam nga munoo ko yor waaye nag buñ ne dañ laa laaj lu ngeen bokk nga ne sama nangam ak nangamam ñoo bokk su man ngeen a ànd ci sëy loolu mooy régal bi soo ne sama nangam ak nangamam rek ñooñu mën nañoo ànd waaye bu dee maag nangamam kooku mun leen a ànd beneen régal bi mooy ñeenteelu taxaw seetlu bi jigéen ji nga xam ne mënees koo boole ak ka ca des nuñ koy xamee nooy xame ne mun leen koo boole mooy ñépp ñaari jigéen ñoo xam ne su kenn ki doonoon góor araam na ci moom muy takk ka ca des ñooñu mëneesu leen a boole ñépp ñaari jigéen yoo xam ne su fekkoon ne da nga ne ah xaaral kii doon góor kii doon jigéen ndax danañ mën a ànd su fekkee ne déedéet duñ mën a ànd kon mën su leen a boole ci buum ñuy wujje suñ ne ndax su kenn ki góor ki ci des doon jigéen danañ mën a ànd ñu ne waaw kon ñu mën a ànd kon mën nañ leen a boole ñuy sëy ñoom ñaar mën nañu wujje kon kooku mooy règle générale bi nekk foofu kon loolu lenn la ci ay tomb yoo xam ne euh, yu ma a xàmmee la ci yi dagan ak yi su fekkee ne waxtaan ci biir sëy mënee su ko bàyyi leer la ko ci anam gu demee noonu fas yéene eh, continuer ci yeneen xutba insha allah am na yeneen mbir yu des yoo xam ne yu aaji leeral la eh, ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq eh, allahuma ansur diinak wa sunnata nabiyik wa awliyaaka alladina wa kaanu yattaquun wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain